ko tuddee sëñ fàll mi ne woon maay Sénégal man sëñ fàll ko ma bañ ceeb la bañ maay ceeb bu mi di jotee ñëpp xaar ma man Fall sëñ Fall mi ne woon sëriñ Bambaay sama baay alaaji Maaligéey sama nijaay Moustapha di sama maam Sénégal jeex na maay Sénégal drapeau bii nu mu mel ñu ni ko vert zone rouge mu ni man lay wane maay vert du ma weer kenn maay jaune du ma sonnal kenn maay rouge du ma rusloo kenn ku ma yaakaar bi muy jot ci xilaafa gi 14 juillet juillet 1945 dafay fekk deuxième guerre mondiale savant bu ñuy wax Albert Einstein ndayam di allemande baayam di américain defar E égale mc au carré la ñu defar ci bombe atomique largué ko sur Hiroshima et Nagasaki 39 45 Japon Chine adduna bépp di tàkk lekk jafe solu jafe xaalis jafe jàmm jafe sëñ Fallou jot ci xilaafa gi nday neex waay rasulullaay sama maam ati rasulullaay rek ñaar fukki at ak ñett moom la fi toog 45 ba 68 Mustafa 40 ans lañ ko yoni 23 ans la togal islam seigne Fall ni atu Rasulullah day yag day neex waaye maa aye kollu dadd jibo mut dara dare rakal meng jam ñooy Fallu ak de Allah Allah Allah yaa leer wallaay di fan mbagg wallaay ndeysaan ku la bañ maa ko bañ toj bañ ku la nga wéy si di coor waaw waaw wallaay di fan mbagg li nga waaw waaw ay waa kaan fa lay yàlla Fallu mooy fal di falli te ko neex mu fal la mu fal ngay waaw waaw ki mooy seexabul ku bara fa daay maa axadu ku leen xamaan xam ne commencé fa dara maa baalan rayam ni fu yaram si wàllu mu ne soo daanu bi baaram fóola naa laaj na la maamam sharif la sharifun bun sharifun sharifun bun sharifun sharifun bun sharifun tuuma jublu wala alaaji fal mbake du xotti saatir du tas yaakaar du daw ko laaj ku laaj mooy li nga géejal fàllu xam ne la انا محمد نال مختار ما لوكاوي يا شيخنا الفضل فضل غزيم شريف فارس فتن مباك مصابله كما نيت موي وسلا لو دمنا خيوال بابان دوتو جيخ ابدا كو سب شيخ فال مباك خيول ورلا لو دودلا لا لا من دا شيخ فال في خير الا من دا تاني في خمنا نولا لخ برام غوركا كو دف ndey ko jubook woo diwaane seen mboolam xam na la biyti walayt yaar fonu mang bi wër sirif nga yaa jeeta mboolam kun lu wàllu la gaal gaa ngi ni tar ku nag batar di aaxira yëg ku dugg ak sëriñ bi Cheikh Fall Mbacke ak la Isaka Sarr. waaw bu ngeen noppee ngeen xool téyeer bu leen neex ci réew mi. ndeysaan ngeen dem fa taxaw. jox na leen nee na ma sëñ Fall rek la am. waaw moom rek la am. moom Alaaji Baara. ba baayam it. waaw mooy sët bi njëkk dégg sëñ Bamba. maa la ko wax. dem na màkk yoon. waaye lu mu gis màkk foto ko. Alaaji Baara def na ko Touba. Alaaji lu mu gis màkk foto ko. indi na ko tuuba wallaay ayca bisimilah bisimilah aywa wallaay. ayca bisimilah sëñ Moustapha Alaaji Baara. waaw yëgal yëgal mu koy ziar. yëgal foo jëm. wax ni moom la ko tuddee. waaw oui oustaz Mohamed. waaw. Euh, euh, Go Parfum. Go Parfum yaakaar naa daaw jot nga ci. waaw Go Parfum nee na ma wax la jox na la groupage parfum. waaw jox na ko Serigne Akassa mi toog jox na ko Pape Abdoulaye Mbaye Peex euh, Pape Abdoulaye Mbaye Peex jox na ko Cheikh Sarr jërëjëf nee na heure bu leen neexee ngeen jël su ko yaakaar naa sabas yaa ko jëli daaw waaw kon leer na jërëjëf jël ma maa ngi woon ci bàyyi sëñ Abdoul Karim sëñ Saliou Koule waaw sëñ Fall waaw maa mi sëñ Xaadim Mbàkke mu sëñ Abdoul Karim sëñ Abdoul Karim gërëm na doomam jooju dëgg la dëgg la maa ngi ci woon maa ni moom la ko tuddee sëñ Abdoul Xaadiri ah! borom Baxdaat borom bustaan bàyyi sëñ Cheikh Mbakke bàyyi sëñ Moustapha bàyyi borom porte parole bi Cheikh Basirou Abdoul Khadr bàyyi sëñ Abdou Samad bàyyi sëñ Sidi moom la ko tuddee sëñ Abdoul Khadr borom 1148 ajjuma sir 1159 onze la onze la wuute makka taxoon mu wuute ko ak umra ji ak aj makka sëñ Abdoul Khadr nuru sëñ Touba lool dippi ko lool jeex tàkk ci sunna ñi ñuy bëgg a ray ak sunna sëñ Abdul Xaadir yi sunna ñi ñuy tudd sunna di ñu wax sunna sëñ Abdul Xaadir sëñ Bambaay Baye mooy sunna sunna ak sëñ Abdul Xaadir àgg na ci suy war ci oto chauffeur bi di ko dawalal xam nga kii yor volant bi moo koy féete gauche kon suy duggee ci côté droite bi il faut moom gauche a war a njëkk a dugg waaye lu mu metti metti tànk ndijooram lay jiital ci oto bi daal di bikkat ñu ko door a toog ngir fonk sunna ndax bëgg a jiital sunna rek sëñ Abdul Xaadir te kat sëñ Abdul Xaadir maase nañ ci ni su masaa dëkkmal boroomam ba waaxuy julli ji dootul gestu dootul wax ak kenn waxtu wi rek benn yoon la ni bërët di dem am ku ñëw ba tolloog moom ni Serigne Touba amul moroom mu ne ko gees ni ko moroomantewul mu ne ko Serigne Touba bokk ci mu ne ko mësu cee dugg imaamu imaam yi 76 bi muy dem Makka sëñ Abdoulaye dani su fekkoon tey mën naa ko maa sama bopp waaye dinaa ko boolee ki ndaw woolu fukk ñoo xam ne ñoo ko gunge alaaji baara mi ñu tudd léegi bàyyi sëñ Moustapha alaaji baara fàllilu doomam ja nga xam moom rek la bëggoon woolu sëñ baaxir buso mu sëñ mbàkke buso woolu sëñ mataar buso mu sëñ mbàkke buso boole ci sëñ asan buso mu sëñ mbàkke buso boole ci sëñ daam atta sëñ abdourahman xalifa sëñ ibrahima mbàkke mu sëriñ Touba mu baax mi ca bokk boole ci sëñ mouhamadul habib mi toogal tey sëñ Abdoulaye boroom dër bi fàtte woon naa ko boroom jaaj ak joor jën ak joor ak ndox borom daaru rahmaan bàyyi sëñ seex mi ñuy jooy sa noppee gudd bàyyi sëñ Modou Kéemaan dëgg la ki dippi woon sëñ Touba physiquement sëñ Moussa Ka nee na allahu moo di jenn waay mooy jàpp doom def ko ni bàyyi ñu bokk benn taxawaay Abdou di bambaam xarnu bi soo ko gisee muy sàmmandaay Seex Bàmba ñoo nuroo jataay nuroo yaram nuroo sewaay nuroo deret ci xarnu bi nuroo waxiin nuroo doxiin nuroo jëmm ak meloog defiin suy ree nga waat nu du keneen Bàmba ñëwaat ci xarnu bi moom la ko tuddee man it xalifaam sëñ Modou Habib ca la bokk ci convoi bi sëriñ Seex Ahmadou Mbàkke sama sama kilifa ndax man sëñ son yi booy sama wasila mi nga xam moo feeñoon ci weer wii juróomi fanu weeru koor sëñ Bàmba am na ku dund sunna ku ci gane woon àdduna ku mu dénkoon alxuraan ak teraanga sëriñ sooy bu juróomi fanu weeru koor ci la feeñoon fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru koor ci la ñibbi aljana dundal laylatul xadar ba fajar mu door a dem ajjuma sëriñ sooy bu wee juróom bu jigéen dafa demal sëriñ Touba barzaq loolu mat naa xam soxna Mariama Bousso mi ko mi soxna Mariama Jaxate mi ko meññ moog sëñ Abdoulahat ñaar la fa am am na sëñ Amsatu Jaxate wax na sëñ Touba ni ko gént naa mu mel ni àdduna bépp dañoo yuuxoo ñu ni sëñ Touba fii jóge ñu dem ba am ndaw yu lay jël sil sunu borom ñu jikki-jikki nga am koo doxale ci digg bi ma xool ko muy soxna Mariama jaxate sëñ Tuubaa ni ko géntoo dañ laa wan demal taxawul ma ko ba mu rot ba ruu rot am na lu may liggéey li mu wàcc liggéey 1918 boobu sëñ sooy bu ci fukki weer la nàmp sëñ Bamba jël ko jox ko ku tedd ka ñuy wax soxna soxna xari xari mbar sill mi jur sëñ Abdou Samatum sëñ Tuubaa mu tuddi ko yenant bi mu àggaleel ko nàmpoom moo tax keroog bi mu wàccee liggéey sëñ sooy boo ñëw taxawul ko boo xam ne maa ngi door a ñàkk sama wéejur wa moo ko defal lépp sëriñ sooy bu la sëñ bàmba dénkoon alxuraan tëjoog moom jullik suba jiite ko ko ba jullik tisbaar di jot sëñ moor jaxate noddu bis boobu àllarba bala woon mu woo ko ñu wax sëñ Aliou Sëy ni ko toppatoo lu yóbbu sëñ Amsatu ak sama doom ji sëñ sooy li ma def ak yow xam nga lu tax ma def ko sëñ Amsatu jaxate ni ko man mii nijaayam bëggoon naa koo xam mbàkke sa doom ji yaa ngi tëjoog moom suba ba léegi lu tax nga defal ko ko mbàkke bëggoon nañ koo xam suñ ko mënee xam mun dama koy jàngal te raa nga dénk ko alxuraan. mu ma koy jàngaleel di ko jàng soxna Baali suba la woote. ah ngir dim soxna Baali. soxna Baali suba la woote ngir dimbile. waaw ku mu am moom sëñ Tuubaa njabootam gépp génn ñu rasulullah. ba ci borom got. borom mbuur borom jàppandal borom xel koom jaaga sangub seex Béthio Thioune borom 17 avril. ak Seex Amar. waaw sangub seex Amar. waaw Serigne Saliou la force tranquille milliardaire bi dëddu woon àdduna. savant bi daan wax tuuti. ku ragal yàlla ki ki daan sàkkloo sarax ki jeexoon tàkk ci Serigne Touba Serigne Saliou Mbacké borom jàmm ak jamono. sëñ Saliou moomee mu tudde ko yarant bi mooy le vertueux ku yiiw ki le vertueux am caatam mu tedd ma sëñ Mouhamadul Mourtada ah, tudde ko yenantu bi demal Italie demal Singogna demal Paris demal Cagliari demal Piacenza demal Rome demal Catania demal Verona demal Palerme demal Sicile demal Milan demal euh, euh, fu ñuy wax fu ñuy wax ñuy fu ñuy wax Rome di capitale catholique lépp sëriñ demal Chicago dañ fa dem ñu bind ca musée ba ni sëñ Tuubaa dafa des ci géej gi waaw weer na ñu ñuy wax waxoon nañ mu ni mu ma mu ni fokk ñu dem Chicago mu ni damay dindi tuuma Cheikh Balla Samb ma ngi may dégg wér na bi ñu yegsee